alquran ndax weeru koor yow wax dëgg yàlla loolu moom incha allah ñaal ñaan nañ ñaan yàlla yàlla may ñu fekkee ko tal ko incha rabbi waaw dafa mel ni tey moom dama andiloon sama sama copain ku ñuy wax maxeer abdoulaye ba abdoulaye ba yow namu naal de temps yi gis ñu gisee de ñu tase trop temps dama xaar seen temps mu ne temps daal temps grand laay temps dafay nelaw quoi day nelaw leen guddi yi mu ne sama Baye Fall bi day nelaw si Baye Fall loolu nelaw guddi waaw macha allah ngay doxit ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la di la ziar euh, di kontaan si dellu si waat incha allah beneen yoon donc euh, xam ñu bëri ñu may laaj ñoom xamuñu la mooy Kazu Rajab donc ñu euh, am si deux occasions mu nekk deux mbir yi nga xam ne pour en tout cas ñun sénégalais.

Euh, le maître a le poids du verre, le maître quoi parce que dans un poème la femme benn euh, ce qu'on appelle la euh, femme, un maître qui a été utilisé par exemple ñi jàng tubaab français di nga comprendre loolu parce que c'est les mêmes techniques avec Aout. sauf seulement que Aout, la métrique arabe elle est beaucoup plus complexe que la versification française ni Django ni français war ngeen comprendre normalement alexandrin n'est-ce pas alexandrin Euh, n'est-ce pas alexandrin c'est un vers bi nga xam ne euh, douze syllabes la war a am n'est-ce pas arab dafa am loolu nag et donc li nga versifié bëgg wax ay chiffres te soo waxee nag chiffre dafay gudd sax chiffre dafay yàq sa sa was na autant nga jël ay mots pour mën a pour mën a andi chiffre bi par exemple je dirais séddage mag bi wax foofu ne yabbun baatu yabbun c'est deux lettres yaa ak baa xam ngeen ni arab dafa am. une correspondance qu'il y a entre les chiffres et les lettres n'est-ce pas on a classifié l'union ñuy abjad. l'alphabet arabe alif ba tasa, alif ba tasa, arabe alif ba tasa, jim ha ha etc. mais abjad, c'est pour des réalités beaucoup plus euh, euh, euh, je veux dire arcanesques et arcanes, secret là on dira Abadjada. n'est-ce pas, à Badjada. Sama gars yi di ziar bu baax eh, Lamine Fasluman eh, Umar Mbaye ah Trondo Togolo maa ngi lay ziar Mouhamadou Abdullah Touré ay ah, ñep mang ngi di nuyu leen ziar ma ya, ma maa ngi leen jëloon au passage. Donc, euh, c'est Abajada bobu c'est une classification bi xam on a pris les 28 lettres euh, TASCO pour mëna am lettre bu nek la lay peese mu nek une suite logique ainsi on aura alif A qui va peser 1 n'est-ce pas Ba peser 2 Jim pesait 3, Dal pesait 4, la première ligne. On fera comme ça sur toutes les lignes, jusqu'à avoir 7 lignes et 4 colonnes, n'est-ce pas 7 lignes, ligne bu c'est des qualités de lettres on va on va comprendre c'est des lettres de défense lettres des lettres pour la santé des lettres d'ouverture, lettres de réussite des lettres de voilà lettres de femmes il y a une qualité il y a une qualité pour chaque lettre il y a une nature lettres de femmes nature moins, n'est-ce pas euh, il y a une valeur numérique euh, arithmosophique on dit c'est arithmétique par 1 2 3 4 5 10 donc alif ba jim dal Hawa, za ha ta ya Kaf, Mim, etc. donc on aura des lettres de alif jusqu'à Chine Chine qui va peser 1000 am ça, sax c'est ñu Chine il faisait référence à la somme euh, totale de l'ensemble des sciences connaissances et arcanes qui sont contenues dans les xuruf n'est-ce pas Il y a une suite logique nak bo am dans les dans les huruf. Fatlikou len alphabet wo yent yalla Alphabet 16 lettres N'est-ce pas 16 lettres. Ni def rab bo batay ñu utilise alphabet bo. Donc euh, des traits et des points. N'est-ce pas Moussa salam, il a eu un alphabet de 22 lettres. Donc on a ajouté 6 à 16. Moy alphabet yent Moussa avec le hébreu. N'est-ce pas donc, Alpha Ben Jal on a ajouté 6 encore à 22 pour Moussa. Donc, 28. Donc, de 16 à 28, il y a toute une histoire, il y a beaucoup de choses, il y a une Donc, il y a une nature, il y a une qualité, il y a une, il y a une dimension numérique, il y a, euh, l'IEP, c'est des leçons. Ah. Euh, Mohamed Abdallah, son Bahoula. Ah. c'est bon Voilà, je continue. Je <laughs> suis Ba Je suis poisson d'avril Voilà, <laughs> je mais il est bon voilà. Ah, son est bon. que continuer. Mohamed Abdallah Touré euh, le son est bon hein Comme kon yow Abdallah son dafa mel ni de donc euh, kon kon Abdallah ci yow la donc si si yaa nga bruit c'est vrai que yaa nga bruit bruit c'est attends xaaral je vais vous je vais vous épargner bruit dans 15 secondes ko ventilation la ventilation machine n'est-ce pas donc je disais kon lettres lettre bu haraf bu ci ci bu arab qualité n'est-ce pas nature fonction amna poids n'est-ce pas il y a un tas de beaucoup de choses qui sont derrière les lettres que les lettres solo le vrai message même du Coran sax euh, du kese aay ñi ñuy liir mais gën na xóot aay alquran yi donc euh, loolu lu jar bàyyi xel la donc nga gis ci kon yebbun bi war na sànq fois c'est si Adama alayhi salaam donc noonu la ko situation ak jàppee donc euh, di wax yonent bu nekk C'est la ci même cette logique là logique boobu kazu kon pas une invention non non c'est pas une invention les les soufis parlent comme ça donc kazu kaaf 20 la euh, za 7 la ce pas donc ça fait 27 kazu moins 27 nest ce pas bu c'est euh, pas euh, ce sera 22 nest ce pas donc euh, vendeur lay lay signifié extra bu ne euh, ye c'est pas euh, yezu euh, euh, c'est le 17 n'est-ce pas normalement son boobu ngeen doon son bi alternant son bi bàyyi n'est-ce pas donc comprenez ko kon kazu rajab mooy le 27e de rajab loo ko si lay tekki amul leen le muy donc il faut ñu comprendre bu baax cette euh, méthode et technique euh, d'utiliser, de mentionner des chiffres tout en prononçant des lettres loolu c'est un propre bi du tasawuf n'est-ce pas le gars qui xam la si biir tasawuf léegi euh, jour bi nak dafa dama gis ni dafa am ñaari choses yi xam benn bi sax lay gëna insister insisté man moo ma intéressé moo ma gën a moo gën a intéressé mboole mi umma bi yépp té moy euh, rañaanu yoon ci yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam nak gi nag Kazu dañ koy féete chaque fois di wax di si fàttaliku Euh, juddub euh, kenn ci ay doomu Sénégal muy doom bu ràññeeku Sénégal bokk ci histoire du Sénégal am jeexit yu bëri ak njariñ yu bëri yu mu am ci réew mi ci doomi réew mi yemloo gas si murit yi chaque fois fi ma nettali fay histoire yi xam ne histoire yooyu dafa amoon dafa doxoon diggante sëñ Fallou ak euh, ku mel ni ñoom El Hadj Abdoul Aziz Dabakh chaque fois ma nettali histoire ku mel ne sëñ Fallou ak ñoom Thierno Thierno Seydou Nourou ak ñoom Baye Mandione Laye ak Cheikh Ibrahima Niass. Euh, hakaza ñoom Mamadou Amadou lamin Diène ñoom Chamsidine Diagne donc euh, jamono jooj ñi fi nekkoon ñoom ñëpp dañoo conscient woon xam li xew xam ne ñoom ñoo bokk liggéey seen liggéey mooy toolu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamoon tamit ñoom ñoo bokk ennemi seen ennemi du kenn ku may iblis bi xam ne yàlla mooy ne ittaxizuhu jàppee leen ko moom moom jàppee leen ko àdduwan nañ ko jàppee ennemi n'est-ce donc ñoom ils étaient dañoo àndandoo n'est-ce pas euh, dañoo àndandoo nekk benn ànd ci liggéey boobu bëgg defar nag réew mi sànq dama koy wax benn xarit ma ne ko gis nga ñoom de bu ñu ñëwoon jamono jii xool seen ay njaboot ñoom seen bopp euh, dinañu am lu leen métti ndax seen njaboot yëpp nekkuñ di dox si ñoom li leen neexoon maanaam li doon dox ñoom. ñu ngi wax sànq wax si sëñ sëñ Chouaïbou ndeysaan sëñ Chouaïbou nga xam ne Eh, jakam ci bir kërëm ci Touba li waral ñu eh, tabax ko lool mu défar ko dafa xey bëss genn pour dem julli juma juma ju mag ja ba muy genn gis ben way ben jigen taxaw ci buntu si si wetu si garab bu nekkon ci buntu kërëm lool motax mu rebu ci chemin génnaatul ba mu gënee ba laaj bi gëné dëgër dañé gaay e dagalé ma garab bobu n'est-ce pas dagalé ma garab bobu donc euh la défar jakk ci bir kërëm baye genn kooku moom charia bu leer bi nga xam ne donc bu ma kaay waxee waxu ay no kii murit la kii tijaan la non loolu loolu taxawul loolu ça ça veut absolument rien dire tarixa euh, yoon kese la sa yoon kese la bi nga bëgg jël bi nga xam ne moom nga gis si moo gën a ngoo ak yow nga bëgg see jaar euh, pour mën a egg fii la tax a jukk te fii la tax a jug du tarixa bi la tax a jug mooy yàlla suñu borom subhanahu wa moo tax a jug ñëpp moo taxoon jug gaayab de man su ma xoolee bindu gars yi bindu ñoom Cheikh Amadou Bamba ñoom Seydi Hadji Malick ñoom Cheikh Ibrahima Niass ñëpp lañ doon werante werante wuñu dañoo nekkoon di jaayante ku nekk di xëcc ne nag du ma nangu du ma may kenn mu gën ma jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama lépp si yonent bi laa koy def du ma nangu kenn gën ma koo jege c'est-à-dire que ñoom xamoon ni kon la combat du woon ay euh, non du comme du woon li gars di wax ni de seen combat ñoom mooy jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg yonent bi topp yonent bi roy yonent bi dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que lii mooy suñu combat ñun ñëpp sax ñoo bokk combat dañu see jiitu raw ñu si ñu war leen mën a déglu xool seen expérience ngir mën a jariñu ñun waaye c' est le même combat pour tout le monde hein? n' est eh. ce pas euh, euh, donc macha allah mbir eh, yi nag noonu la demee woon donc sëñ Fallou kon guddoom ci rajab gi loolu tamit macha allah muy weer bu màgg muy nag lu gars yi di màggal j'aurais bien aimé nag gars yi suñu dem màggal lolou yam kese dem ziar def ni lek ay lek ni bisuat non waroon nañ def ay waxtan ni nga xam ne euh, dem ziar kenn wala ñu dem def ben magalu kenn mo dafa ram jixit donc euh, war na am jixit jixit bu am solo bu ñu war am ci dem magalu ben goor yalla ndax waxtaanee goor yalla yi dafa am solo nak ndax hadis euh, mooy wax ne bu ñuy waxtaanee goor yalla yi teraanga yàlla yermale yalla da fay wacc ci kaw ñooñu donc waxtaanee goor yalla am solo la waaye nag ñu waxtaan ci góor yàlla yi pas ci seen ay karaama pas ci seen ay dimension yu extraordinaire mais leen waxtaan si naka lañ doon gisee àdduna naka lañ doon jaamoo yàlla naka la ñu fonkee woon diine ndax loolu gëm naa dina xemem loo taalibe yi diine xemem loo leen yàlla ndax sëriñ yi soo rek lañ nekkoon nekk ñoon ci leneen wax dëgg yàlla donc sëriñ yi moom euh, seulement nag su ma gisee yenn discours yi yuy def sëriñ yi ay genre demi-dieu c'est pour yobul doomu adama yi dans le fantastique dans ben voilà dans ay magie te loolu wax deug yàlla lolu xajul ci biir l'islam ñu on n'a pas besoin de ça n'est-ce pas donc machallah ben phénomène nak phare bi xamne ne kon moo tax tay ni live sax te moy kazu rajab deug deug donc moy rañan yonent ci àll Muhammad sallallahu alayhi wasallam donc ñu xam tamit ne rañan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci calendrier égyptien mu ngi amone ci 27 rajab n'est-ce pas bu ñu fatali rajab yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo moo ne inna rajab mu shahrullah mu rajab bi moy weeru yalla donc rajab bi nek ni nee na mooy yalla yàlla wa sha'ban shahr ummati yi weru ne lu baraxlu biñu jëmi ji après rajab mu mom moy sama xet n'est-ce pas n'est-ce pas loolu wa sha'ban shahri dafa ne sha'ban moy sama wer man man nabi sallallahu alayhi wasallam sha'ban moy sama wer. mune wa ramadan shahru ummati mune ramadan nak moy wéru koor té muy ñëw après chaban mune bobu nak wax dëgg yalla moom moy moom moy moom moy moom moy wéru sama xet n'est ce pas ah seigne abdou abdou ma ngi lay ziar bu wéru wéru wéru donc euh, di la nuy Babacar job ñu leen di nuy di leen ziar seigne Aziz ma sha allah yalla na yàlla nangu ziar donc gis ni kon amna kon ben teranga bu nekk kon ci wér bi moo tax tam suñu gis tamit euh, juddu yenn goor yalla yu kawé yi ñenn ñi nga xam ne wax deug yalla yu zo marqué ce pays et seigne Fallou en fait partie mom goor bi la doon ah wax deug yalla daf ñuy xamal ni kon ki borom cër la tax guddi googu n'importe ki rek yalla ko ci cëral diko ci diko ci may mu ci gane ci aduna donc euh, rañan nak di ben épisode ci bir diine bi xam épisode bobu dama gis ni dafa jar ñu taxaw jangat ko ndax wu len ni rañan bi mu ngi am ci je vais dire ci atu fukel ginnaw risala gi manam 10 ans après la prophétie de yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam si la n'est-ce pas donc bu muy rañan kon il avait 50 ans n'est-ce pas lañ japp lolu baxa bax parce qu'il y a un symbolisme très fort autour du chiffre 5 bi xam nga ci donc euh rañan bi bari na ciow waye wax deug yalla kenn mënu ko weddi na alcorane daf ko yaxal n'est-ce pas lan mo xew ci rañan lu tax ñu rañan yon ci al muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wu rañané fan la dem ak lam moy jeexitu rañan ci ñun ñi nga xamé ñu ngi ci siècle bi ñu ngi ci 21e siècle ndax jàngat ñu war a am ci parce que nag alquran moom bu ñu fàtte ni eh, risaala la naam dëgg la eh, naba la dëgg la naam waaye nag li ulil albab la waaye ngir ñi ni xelu ñi yàlla ne man ñu xelu ñi lay waxal n' est ce pas donc eh, macha allah ñu war a bàyyi xel bu baax a baax ci loolu yonent bi salaay at boobu la wax ni moom mooy mooy atum jàqareem n' est ce pas atum jàqare n' ce pas am boobu daal am bu doy waar la ndax euh, at boobu ci la yonent bi ñàkk soxnaam Khadija ci la génn àdduna euh, nijaayam Abu Taalib euh, nga xam ne mooy bàyyi Seydina Ali karamallahu wajhahu at boobu tam loxo ko ñàkk ñoom ñaar ci benn semaine leen ñàkkandoo ci une semaine te xam ngeen ni ñoom ñaar ci biir risaala yoon ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam benn poids bu ngànd bu ci amoon ndax nah, soxna Khadija moo nekkoon premier soutien wu yonent Muhammad sur le plan financier moom mooy soxna bi nga xam ne dafa jël alalam bi yëpp jox ko yonent bi sallallahu alayhi ci yàlla loolu nekkul lu yomb donc bëri na ay jam ñu goreel bëri na ay campagne militaire islam njëkk def bëri na ay gàddaay yu gars yi njëkk def vers l' Afrique parce que Afrique la njëkk gàddaay muy Abyssinie mooy actuelle Éthiopie donc lii yëpp ça a été fait ci fortune soxna Aïcha ak fortune Aboubacar Sadiq n'est-ce pas donc buñ fàtte ni moom mooy la première bi gëm mo ñëk dugg ci diiné diiné keneen ci ñëk wo moy jigéen ci jitu à chaque fois mané gaay gars yi dañ bàyyi xel bu baaxa baax détail bobu jigéen mo ñëk gëm l'islam té jigéen mo ñëk nek martyr ci biir l'islam jigéen da ñëk ray wa muy soxna sumayya mu la ñëk ray ngir islam japp ko ray ko ray ku ñaaw mu bañ né du renier jamais sa foi n'est-ce pas suñu xool jàngat boobu nag war nañ ko xool di ko di ko xayma si ñun nii Eh, ndax ñu ngi am ngor boobu ak kóllëre boobu suñu diggante ak suñu borom waaw ah, kooku jigéen la woon de donc euh, <coughs> Khadija kon ak euh, moo nekkoon soutien financier Abu Talib c'était son c'était son son soutien de sécurité n'est-ce pas ndax Abu Talib nag ci kilifa quraish yi la bokkoon ci kilifa yi la bokkoon euh, taxoon na ñu woon ci kaw yonte bi salaa salaam ndax bëri na lañ doon am leen métti si yonte bi salaa doon ñëw ci Abu Talib ne ko ah sa waaj sa sa jarbaat bi waxal sa jarban bi waxal sa jarba parce que kat nangam ak nangam na bay li muy def na bay li muy wax nangam ak nangam yep leen di calmer gis na sax ñu wax ne euh, abu talib yefir la dañu dañoo juum de dañu joom et c'était stratégique mënul won tuub dugg ci bir l'islam ba pare euh, wan ginnaw wa quraish lolou bu ko defone directement ko du mën amul benn njëriñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam Donc, il a apparemment refusé d'embrasser la religion de Mohammed Donc, nous avons dit que nous ci won té ñu ni Talib won nest pas won war ñu ko dafa yu yu tax raison haqiqa chaque fois dafa xel am solo ñuy lecture double euh, zahir sans batin euh, baatin tamit sans zahir du lu sell trop waaw ah, ku boolewul zahir ak baatin wax dëgg yàlla am gis-gis bu leer dina jafe ci moom nest dina jafe ci moom donc euh, moo tax tasawuf nag nekk courant bu am solo ndax courant la bi nga xam ne dafay jokkale doomu aadama bi ak li nga xam ne mooy mbir yi xam-xamu biir yi xam-xamu biir yi ak xam-xamu jagle yi <coughs> ndax xam-xam yi dañuy wax ne ñaar la rek dafa am ay ulum yi nga xam ne dañuy wax ilmul euh, yi man tuuqa al mantuqa mooy yi xam ne wax dëgg yàlla nataqa yi xam ne dañ koy waxtaane mooy ay ñoom fiq ñoom balaax ñoom arut ñoom naxwu et cetera yëpp nga xam ne daal c' est des connaissances acquises qu'on apprend écrit ko xam ak ulum yi nga ulum yooyu al mafhum al mafhuma xam-xam yooyu xam-xamu nand la xam-xamu biir la xam-xam yooyu nekkul ci ay téere xam-xam boobu du ay jàng ay ay livre wala lire ay auteur koy joxe attention mom la goor yalla mag bobu doon wax nan al ilmu laysa fil kutub walakin fi sudur rijal mune xam xam neko ci téré yi way mu ci deñu goor yalla yi way kon na gaay jégué goor yalla yoy donc amna solo tok ñu baye xel loolu way ñu gis ci kon le contexte kon ñaar ñi xam ne ñoo les grands soutiens du prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam ala à bo Mecque ko mak dem gul màq ñom ñaar ñoo faatondo ci ben jamono parce ce pas ci ben jamono lu ñu rawante ay fan la ay ñetti fan ñetti fan la yonent bi salaay ci zahir nuroog ku tumuranke n'est-ce pas nuroog ku tumuranke donc euh, gars yi nag euh, di ko xool di ko bàyyi xel donc euh, am na lu bëri lu gars yi wax waaye nag suñuy xool ñun ci wàllu xaqiqa nag amul benn sabab bu tax yàlla rañaane nekk rañaan bi c'était écrit bien avant muy ñëw si kaw suuf dafa waroon rañaan n'est-ce pas te rañaan googu tam dafa war a am ay jeexi si ñun ñii des fi parce que ñun suñu dañoo rañaan attention yonent bi salaay salaam moom mooy suñu mod to the model لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للقرآن الله. nous avons un modèle accompli en la en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu def defu de manière euh, anodine defu ko de manière euh, euh, miraculeuse parce que ça bi fait alayhi wa sallam bàyyi fi ay miracle yonent bi woow wooweewuñu miracle a un yonent de xam il y a un def de miracle pour gars yi topp la ñun wooweewuñu miracle son miracle reste le Coran alquran mooy karaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu raw ci xeetam mooy ñu raw ci alquran ñu gën a dégg alxuraan lim ñoo ñoo ëpp cër ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bu nekk nag jamono bu nekk n'est-ce pas donc euh, rayaan bi kon la sallallahu alayhi wa sallam rayaan bi nag nekk ñaari xaaj yoo xam moom laa ko bëgg laal mais man ñetti pa ñetti pàcc la sax dafa am lu ñuy wax al isra ak lu ñuy wax al mi'raj n'est-ce ñaari kàddu yi lu ñu benn al isra moom mu ngi bàyyeekoo ci verbe bi ñuy wax sara le verbe sara le verbe sara signifie tuki, tuki goudi wante tukki goudi. n'est-ce pas Tuki goudi, voyager de nuit lay n'est-ce pas donc euh, isra c'est la moi fi tàmbalee màq gati bu jógee dem Jérusalem n'est-ce pas euh, partie bi le niveau le voyage nocturne partie bi dañ ko doon def un mois ci ay diamant de jooju Parti bi en un clin d'œil ko def na ci ñëwaat légui lutax mu mën ko def ak naka la ko defee n'est-ce pas mo am deuxième phase nak muy phase bi nga dafa jógee Jérusalem léegi nag euh, def une montée def une ascension loolu loolu woyé mi'raj wooyee mirage mirage baat bi si boobu soo xoolee bi dañuy gis c'est un schème qui décrit un instrument xam nga ni arabe euh, pour les verbes qui sont trilithiers simple maanaam lettre verbe yi nga xam trois lettres donc, euh, on construit des mots par rapport à failiek, mafoliek, Donc, si nous regardons, nous avons n'est-ce pas euh, avec soukoun, c'est un instrument. Par exemple, le verbe fataha signifie ouvrir. Vous avez miftah, un instrument qui tax n'est-ce pas C'est la clé n'est-ce pas mi donc moi » instrument bu ñu bu ñuy bu ñuy yéegee bi nga xam ne euh, am na sotti alxuraan sax du sotul maarij n'est-ce pas maarij mooy leen dëgg li naa si ñaat léegi taarujul malaayikatu fii yawmin kaana miqdaaru xamsiina alfa sana taaruju n'est-ce pas donc ascensionné naa si ñëwaat léegi incha allah pour mu leer parce que mais lii xam leen dañ xam ni lu ñu war a dund la ñun ñëpp lii du ay histoire de conte de fées ñu war a taxaw di ko wax di ko waxaat non l'islam euh, benn expérience personnelle la bu muy invité benn accomplissement individuel tamit lay woo dans un esprit collectif lii mooy islam islam weesuwul loolu n'est-ce pas donc islam c'est une réalité permanente nous ne sommes pas contenus ni ni castrés dans des faits historiques yoo xam ne dañu ne di ko relater nii rek sans benn sans benn voilà islam wax dëgg yàlla doxewul noonu islam il est vivant dafay dund islam jamono yep lay waxal xet yep lay waxal ba pare ñep la mayando même chance man amul ku gën kenn wala amul ku am prédisposition ci kaw kenen lool bu amun ko ñu bàyyi l'islam bu yalla waxone eh, man kat famille nangam lay jox wala man kat ku bokul tel famille duma la duma la jox samay may kon ñun ñu bàyyi yalla waxit kessal nak ndax ñun mun ñoo bayi yàlla suñu jaay suñu bàyyi yalla amuñ sukuñ jàpp mais ñu bëggoon nag ni yalla ci côté yalla da fay yamalé yalla euh, muqsit la al muqsitu ilay kitab. équitable nag euh, ak juste moo tax nag ku yëngatu am ku bañ a yëngatu nag wax dëgg yàlla soo fi amee di ñu jaaxal waxuma doo am de waaye soo amee di ñu jaaxal donc isra bi noonu la demee yenn saa sax moo ko ko dëggal ndax alquran dafa andi saar si alquran bi nga xam ne saar bi mooy sax suratul isra mooy sut bu ñuy wooyee sax surat dëggal du ko gaa yi xam ngeen ni alquran saar yi dañoo am ay tur yu bëri donc euh, tur yu la ñu am tur boobu ñuy wax tur sootul bani Israël moy sot bi xamé la 17e suma djumul la 17e du Coran elle vient juste avant sotu euh kaf suma djumul avant kaf kaf mo ñom avant maryam maryam après Taha Taha après Anbiya Anbiya maanaam Anbiya sax Taha Hajj Anbiya et cetera donc Alxuraan on l'a classé par sourate n'est-ce pas donc al Isra mooy voyage bi nga tudd Sassane def te ne Makka la nekkoon ci résidence bu nekkoon foofu à proximité de la Kaaba fa la ko Jibril alayhi salaam fekk nee na nañ dégg bu baax nag détail bi ma li may wax nii euh, dama leen di ñaan ngeen teewlu ko bu baax a baax a baax n'est-ce pas donc euh, teewlu leen ko bu baax a baax donc Jibril daf ko fekk si Jibril la wax Jibril nag euh, am na sax ñu wax yu bëree bëri mais Jibril en tout cas. xam ngeen di ba tey mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi doxal mu ngi def te mu ngi dikkal jaamu yàlla yi donc jibril n'est pas absent n'est-ce pas euh, jibril dikkal ko ne ko sa borom moo ma yebal ci yow ne na tey la tey li dafay firi ñaari mbir un yonent bi sam xamoon na te mu ngi ko xaar ndax effectivement naa si ñëw léegi avant rañaan boobu yonent bi rañaan na 33 fois waaye rañaan yooyu rañaan yu yu partiel la bokk teg rañaan total bii may nattali bi nga xam ne bii moo am Kazu Rajab bii moom il est total entière intégral mais il a eu 33 rañaan yi xam ne dañoo ute ci ay forme ci ay degré ci ay euh, martaba ci ay dimension ci ay monde euh, vraiment yooyu moom xam naa ne ça va prendre du temps du si dugg sax parce xaw a métti c'est un peu technique dans le tasawuf mais di lii daal moo ñu gën a soxal tey jii n'est-ce pas ne ko nag tel tay yonent bi ne ko ah alhamdullilah ne bu mu ñewé mu ngi andi ben eh, mu ngi andi mu ngi ànd ak mu ngi ànd ak wala bok mu ngi ànd ak lenn c'est pas un humain en tout cas am na ñu wax c'est un animal am ñu wax c'est un principe am ñu wax c'est un c'est une réalité eh, pesante am ñu wax ni c'est un secret waye eh, jibril mu ngi ko tuddé ak yentim ñaar ñu ko tuddé buraq n'est-ce pas buraq yonte bi nak waxul ni animal la batay waye waaye neena nee muy joxe tayam neena mu ngi nek fa melni comme lu nek digeunte fas ak mbam fas ak mbam c'est c'est un milieu suma juumu la moy sen métissage sen brassage mais waxul li sen brassage dafa ne njoolaayu fas ak njoolaayu ànd dafa mel seen diggante ñaar lolou non la toll attention nak sufiyanke gay dafa am langage bu ñu am té lolou sufiyanke gay kessé xam dans toutes les disciplines il y a un jargon dans toutes les disciplines il y a un jargon donc ce qui lu muy wax c'est c'est dañ ko contextualiser dans un ensemble je vais dire euh, un ensemble sémantique un ensemble corporatiste sax bi mais moy jox sens à ce que la personne dit le mot en tant que tel bref taxu pas loolu nom. donc euh, Soufiane, fekkee xam lu que wooyee fas nag am li ñuy woyé mam am li ñuy wooyee xar am lu ñuy wooyee ginaar am lu ñuy wooyee gëlëm am lu ñuy wooyee nen lii dañ koy waxtaanee ñoom lii seen jargon la ils disent des choses nag en parlant de ça suñu waxee euh, éléphant sax mooy la mooy septième bi élé suñu nee éléphant fas mbaam euh, avant fas euh, fas gëlëm mbaam xar ginaar nen am na luñ ci jublu ñoom maanaam lii c'est un langage purement ésotérique waxuñu animaux yooyu animaux yi sax taxul jug intéressé wuñu réalité primordiale bi ñuy waxee ba ko yàlla di amal mala yi sax amaguñu woon foo ma rappeler ni le contexte du tasawuf mooy ñuy comprendre la réalité immanente permanente primordiale et pré-éternelle réalité bii ñuy waxtaanee li ñuy wax ak azatul aliya waxuñu waxu la la la la manifestation existentielle maanaam mbindee fi li feeñ waxuñu wax li feeñ ndax li feeñ am na jamono bu mu feeñulee te am na jamono yoo xam su fa yeggee du feeñati dafay fàq. waye adna len leen li nga xam ne balaa di feñ ak ginnaw bu li faqé ci feñam feeñam lolou loolu fay des sax di nek lolou mo ñor gaay yi moo tax ma ne chaque fois su wax ñu waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam on parle pas de la personne là qui est ne la là-bas à la Mecque ñu ki ñuy wax gën na xóot lolou moy ki taxaw ne kuntu kanzan man kuntu kanzan safirla ku ne kuntu nabiyyan arifan bi nubuwati wa aadama beneen mayotin mu ne wala aadama wala maayi wala tiin wala janna wala naar wala wala wala mu ne ma nekk naa yonent xam yonent laa fekk Adama projet la woon il à l' de projet entre l' argile et l'eau Adama existé wu loolu il encore mu ne l' bi ñu ko doon ak ndox bi ñu ko war a amalee sax ndox yooyu ah, loolu amagul yàlla bi ne bindagu ko woon ajjana bi mu waroon nekk ak safara bi mu yàlla créer gu ko woon mu ne dara dara dara dara yàlla amal gu ko woon kon rien n'existait instant dama instant na la j'étais conscient que je suis ba pare nekk prophète xam ni prophète laa réalité c'est ñuy wax nga xam ne kooku su wax yonte naan amul papa amul yaay ñun réalité boobu la ñuy wax il faut bien comprendre ce qu'on veut dire et ce qu'on ne dit pas n'est-ce pas donc yonte bi kon joxe na dimension waaye waxul ni mala la attention waxul ni mala la de gars yi ñoo ko ñoo seen interprétation c'est comme malaaka yi gars yi noo seen laaf yi non alxuraan effectivement wax na waxu laaf mais laaf bi c'est un langage allusif c'est un langage très allusif attention au Coran alquran nañ ci dañ ci def ndànk alquran ku amul ku amul mu bu wér warul aventure wu di ko firi yéen sax mu ngi jàngal ne rubba qaaril quran alquran yalanuhum man nagam sax laanatu mu ngi judd ci qiraatul quran maanaam ñu ngi lay maudire fekk yaa ngi lire le coran nee na bëri na kuy lire le coran fekk il est maudit par ce coran là le coran est en train de le maudire ñu si dégg ne ah waaw mooy xam naa ñuy damm xaraf yi non du dese damm xaraf

parce que ils étaient conscients que lii ñuy waxtaane lii c'est pas de l'arabe dépasser la langue jamono bi da ngay gis ne kenn ku sob dem jàng tuuti luxam jël ay euh, euh, luxam sax so tax ko sori ndax euh, luxatul arab bi rek daa taqi na bi xaala ngay bi jàngi trois tomes dem xol ko liir ko taxaw ay ana anta commencer ci petit bi wax dëgg yàlla mbir yi attention le Coran ku xamul la base de la news naan luy xaqiqa kooku amul tawfiir alquran amul tawfiir alquran mën na jotal nag ay maana al zahira maani yooyu nga xam ne al zahira yii daa wax dëgg yàlla su ko jotalee tooñul waaye di ko firi ji ma andee dégg-dégg ndi moom vraiment c' est très dangereux c' est pas donné à tout le monde ku amul fatxu maanaam ku ñuy wax maftuux et pas n' importe quel maftuux ndax maftuux yi ils sont nombre de six maftuux yi du benn kuy maftuux fii bokk te kuy maftuux alayhi waxtaqi maftuux ilayhi waxtaqi maftuux minhu mafaatix yi du ñu benn n'est-ce pas donc nañ bàyyi xel bu baax a baax ci loolu lu am solo la donc lu tax ma ne mënuñu dàq rañaan dama ne alxuraan dafa àndi saar tuddee ko sutul isra déjà isra c'est le voyage nocturne saar bi premier laayam moo tontu ñuy wax ne rañaan amul dafa tëjoo si kaw lala mag waa dégg naa si lu ne ma dégg naa sax kenn ku ne noonoo Euh, oustaz ah, ci rajo mu ne waaw donc euh, euh, yonent bi salaam soxna Aïcha mu ngi woon ci kaw laal Aïcha nee woon na yonent bi jugul ci kaw laal bi tax la yonent bi ba fajar yonent bi c'est bi atu diis ci gàddaay bi boobu Aïcha yonent yàlla Muhammad salaam ko woon soxna c'est pas vrai attention ñee mu ngi ci kaw la Xadija nee na yonent bi bonjour kon si gént la demee c'est pas vrai Xadija dafa deewoon attention ginnaaw làqu Khadija ak Abu Talib la rañaan am donc nañ def ndànk ci li ñuy wax nañu moytu nañ moytandiku bu baax a baax li ñuy wax ndax wax dafa war am une base historique légale scientifique bu ñu ko war a teg sinon wax dëgg yàlla wax bi yàq wax lay nekk donc alquran lan la wax dafa ne subhaanallazi asra bi abdihi subhaanallazi tuddal seetlu ki nga xamante ne asra bi abdihi moom moom moo moom moo tukkiloo tukkiloo na guddi ab jaamam ab jaamam kon déjà ñun si ku ñu war a yéemu nekk lu yonent bi rañaan mais ki ko rañaane kooku la ñu ne tudd leen sell bi yéemu leen ci kooku yéemu ci kee xam ne moom moo rañaane moom moo jël jaamam tukkiloo ko guddi subhaanallazi asra bi abdihi laylan yaa une répétition wax naa léegi le verbe sara mooy voyager la nuit c'est comme ma ne monter en haut su ma nee monter en haut qu'est-ce que la laa bëgg a wax monter en descendre en bas dans le fait de monter mu ngi si biir a pare qu'est-ce qu'on veut dire par là les figures style là asra bi abdihi laylan asra déjà layla la guddi gas la mën nekk mu nekk naxar n'est-ce pas min al masjid al masjid al jox nañu kon où est-ce que c'est passé, dans quel horizon spatial c'est passé rañaan gi macha Cheikh Salih Cheikh Salih maa ngi kontaan bu wér a wér ci yow nga asra bi abdihi laylan min al masjidil xaraam yi kon kon mu ngi déparé masjidil xaraam te mooy beneen turu kaaba gi n'est-ce pas masjid al aqsa jëm ci jàkka bu sori ba al aqsa nag bu sori ba parce que dafa sori woon si voyage ñu bëri ñoo déggoo wax ne ci zahir Jérusalem la loolu la ci baatin gën na sori loolu gën na xóot loolu gën na koo sori trop sax waaye dañuy yem ci cadre zaire pour bañ a soxla ñenn ñi nga xam ne peut-être duñu ay sufiyanke yu ñuy suivre instant yi n'est-ce pas min al masjid al haram kon ila al masjid al aqsa waaye nag allazi barakna hawlahu pour lan li nuriyahu min ayatina kon y a un but dafa am l'objet bi tax ñi ràññaane ko pour ñu wan ko suñu ay suñu ay kemtan waaw dañ ko bëgg wan suñu ay kemtan rek la ñaané ko mané nak kon ba légui nak rañaan gi kon yalla joxé na ki rañaane moy yalla subhanahu wa taala te kooku jógewu fi mu ngi fi ba kon rañaan ñaan mën ko neem wax na nak fa la rañaanee jëlé na ko masjidil haram yobbu ko masjidil aqsa kon jox nañu kon le le sax l'intervalle le domaine le domaine ñu domaine définition mais le domaine de ràññaan avec la borne inférieure et la borne supérieure masjidil haram al aqsa euh, wax nañu une qualité bu nekk ci al aqsa mooy joma mooy masjid bi nga xam ne dañoo lépp lu ko wër ah sama gars yi Jérusalem bi ma gis ni fi barkeel lu ko wër de dugguma nag ci affaire u bàkkaa kaaba dugguma ci lool de bu ma def comme def idi waaye fi ay intifada laa fa gis ak ay naq ba ay et cetera alxuraan li wax du fàddu du fol du foleeku attention n'est-ce euh, waaye wax tamit l'objet li nuriyahu min ayatina dañ ko bëgg a wan pour wan ko suñu ay kéemtaan déplacement bi nag nee naan sànq ku tudd buraaq yenn sa sam ne na buraaq la yéeg dégg naa ñuy wax ay waxu vaisseau sax <laughs> est ce que vaisseau spatial ce <laughs> gars ñu xam ay film yu Hollywood nest ce pas euh, di wax waxu face ak ni di wax waxu ben genre face bu ama bu attention attention laf mooy wax léegi si laf laaf léegi alxuraan andi ay ci fatir di ci malaka yi uli ajnihatin masna wa sulaasa wa rubaa ya na j'ai créé ay yonent ci nit ak ci malaka yi des anges prophètes

pourtant ñaar ñett ñeent utilisé na ko ci ay soxna hmm? euh, mas naa wasula sawru baa wante sax mas sax moom ñaar ak ñaar la à deux muy quatre trois à trois muy six quatre à quatre muy huit mais en tout cas ba yàlla di wax waxu yi seen ay seen ay seen ay seen ay el il parlait pas d'ailes d'oiseau ay ay laafu picc comme ni ko chrétiens yi di ko wane dans les dans les églises non c'est une vision euh, je vais dire catholique de l'ange Nous avons ne ange voilà euh, les gargouilles donc euh, l'ordre des gargouilles l'église, def ko sincèrement du benn islam on parle de dimension en réalité on parle de ce qui évoque dans la dans la deuxième dimension dans la troisième et dans la quatrième parce qu'on comprend pas a baax awaalim ñu maanaam diggante naasut ak et naka la ndax naasut c'est ce monde là c'est le monde bas mais le malakut le monde des anges c'est le monde suprasensible Il faut que l'âge ange évoluer naa si ñëw n'est-ce pas c'est comme ce ma ko doon firi rek man des objets 2D des objets en 3D et des objets en 4D la représentation n'est pas la même n'est-ce pas les dimensions sont différentes ku une dimension 2D ku nekk 3D mënul gis ku nekk dimension 2D c'est comme les humains ça yi mën êtres qui vivent avec eux sur cette terre là parce qu'ils ont des des des une densité moindre que la nôtre ils ont une fréquence plus basse que une fréquence on ne on les sent pas n'est-ce pas problème problème de fréquence là problème de vibration là n'est-ce pas euh, problème de dimension là en réalité des dimensions qui sont peut-être parallèles ou qui sont juxtaposées ou qui sont vraiment euh, voisines des dimensions voisines donc mais loolu xam naa ne si ñaar incha allah euh, mbir yi nag yenn saa sam buraak boobu mooy wax léegi mu ngi juti moom si al barq al barq la mooy barq barq mooy éclair c'est l'éclair l'éclair mooy barq soo xoolee si ñaan boobu nekk si biir jawharatul kamal te taalibe cheikh yi di ko def saa yi ñuy wasifa di ko def douze fois il est fait mention de, cette, de cet éclair-là. Il faut expliquer. al bark al-Asta'i bimuzun al-Arbahil mali'at likulli muta'ardin min al-Buhuri wal-Awani. N'est-ce pas Attention. Barq le nous construire burak. N'est-ce pas Donc, ça donne une idée de la célérité. Ni mu gaawee. il ba expliquer expliqué wu lan la te explication loolu man loolu Il y a sonal dañ am na il lu a itteel dañu dañ ne si yoon si diggante boobu diggante lu mel ni xef ak xippi la def diggante màq ba masjidil xara masjidil aqsa waaye nag ci yoon bi romb na Muusa alayhi salaam ci kaw bàmbeelam muy julli déglu leen sa premier détail là c'est un détail assez assez troublant assez troublant et assez extraordinaire déjà un yonent Yàlla Muusa alayhi salaam ngay xam ñu xam lu mu fu mu nekk les juifs ne connaissent pas où a été enterré Moïse hein. c'est un fait xamuñu fu Moussa parce que ils ont trahi Moussa gëmuñu Moussa ils voulaient juste l'utiliser pour guérir d'Égypte mais ils ne woon pas, ils ne tey pas ñu ko Moussa est mort dans le désert on l'a enterré et puis c'est tout donc euh, ils l'ont trahi ça. déjà de son vivant ils ngi toog leen négocier le gars déjà war nañ ko ñoom war nañ ko dem delluwaat seen ay xërëm ont wàcc sànni table woon leen leen kaay dem xeex yi gars yi bañ ko du ñu xeex demal yow sa yàlla nga xeex di nga gagné et Moussa les appelait vers une bataille contre les géants naa si ñëw léegi les géants existent pour ñi taxaw jox ko ak nangam euh, vraiment je vous conseille d'aller lire mon livre là confidence soufi donc les géants existent alxuraan moo ko andi extraterrestre ça existe alxuraan moo ñu ko jàngal donc naa si ñaar peut-être après mais du suñu objet discussion tey jii donc yàlla li mu créé dafa yaatu trop. Euh, nit yi dañoo am dañoo bëgg am prétention lépp lu ñu gisul rek amul ma ne bëri na li nga xam ne gisuñu ko te am nañu yàqin ne am na n'est-ce pas la peur gars yi gisuñu ko képp ku teg bët na la voici la peur mais xam nañ la peur existe n'est-ce pas l'oxygène ça existe gars yi pour la ils l'ont pas vu et cetera donc euh, nous ne limiterons pas à à à la vision pour soo ko gëm ndax yàlla fi ñu tagg sax ci ñi nga xam ne dañoo am iman allazina yuminuuna bil ghaybi la yàlla jëkk wax الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويما رزقنا من الفقور دونك دانيو رغم لانفيزيبل دي شوز كي نون با فيف نيس با دونك نيون نيوي ني خامي نيوم لا الخال امول بن دوب زالك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الخال بي خامي امول بن دوب نيك ان غيد بور ني خامي ام نانيو تقوى نيون نيوي نيان مون نيون نيوي ني خامي دانيو غم لانفيزيبل نيس با غم لانفيزيبل ba pare di taxawal julli te di joxe as sopp suñu leen yàlla xéewale wërsëgal leen ko n'est-ce pas donc yonent bi saai sam kon il a vu Moïse sur son tombeau en train de prier prière boobu yonent bi saai sam la yàlla ñu ban prière la n'est-ce pas donc euh, yonent bi saai sam ba mu demee Jérusalem kooku Jérusalem la gars yi wax bon je vais utiliser Jérusalem comme gars yi ba mu egsee Jérusalem fekk na tous les prophètes nekk fa en assemblée générale di ko xaar mu doon xaar n'est-ce pas li yonent sasam moo li wax ni yëpp xadis la yonent sasam moo ko wax c'est dans Bukhari c'est dans Muslim c'est dans Abu Daoud Tirmizi ñëpp ko àndandoo ah, sincèrement donc li ñëpp am que peut na am ñenn ñi nga xamante ne mu ñëw nag fekk fa tous les prophètes ñu toog di ko xaar daañu sànq prophètes yi ils sont sax 124 bi nii sax euh, c'est pas le chiffre des prophètes 124 000 c'est les lignes de la prophétie qui ont été incarnées par des prophètes. Il y en a des lignes qui, ont, eu 10 à 12 prophètes pour une mentale mission, n'est-ce pas À chaque ligne, il y a un chef de file, qui est le responsable de la file. C'est si on regarde ce côté, on peut dire qu'il y a 124 000 responsables, n'est-ce pas Il y a un chef de file. C'est une équipe, c'est un waridat, c'est un flux. Nous avons la même chose si nous comment pourquoi les, saints marchent sur les traces des prophètes. Chaque saint marche sur les traces d'un prophète, n'est-ce pas? Chaque saint. wàllu bo gis mu ngi dox ci trace ben yent donc il gis ay ay yent yi ay wàllu yàlla yoo ay c'est des yusufiyun ils sont yusufiques ils vont faire la prison ils vont aller tout tout mal etc. il y a des des des des des il y en a beaucoup des Mohammediens il y en a vraiment beaucoup n'est-ce pas ay ñu a ci trace Insa ñun nag ñoo gën a dangereux extra excellent donc les wol yi moom dañoo dañoo bëri ay xaal waaye nag ñoom ñëpp ñu yor wiraasa euh, lenn ci biir yonent yi waaye y' a cent vingt quatre mille lignes les prophètes ëpp nañu million seen lim maa ngi koy andi si biir conférence suufi ku bëgg dem nga dem xool foofu n' est ce pas euh, parmi les jinn ci jinne yi ci doomu aadama yi ak si malaaka yi ñu ci ñu ci doon wax ku nekk di wax di andi di ko leeral di ko leeral n' est ce pas ci premier prophète bi yàlla yónni si jinne yi premier prophète bi yàlla yónni si malaaka yi on ñu ko andi leeral di ko leeral foofu macha allah mais donc fekk na fa yonent ñu toog di ko xaar lii nekkoon mooy sama première remarque mu leen di jox bi xam bëgg naa ngeen teg foofu seen loxo ba mu ñëwee fekk leen foofu Jérusalem même sa sama wax ne jul jiit na leen ñëpp julli jiit na leen julli ñoom ñëpp julli bi nga xam ne ñaari ràkk la li may wax nii yàlla wàcceegul julli de ndax avant rañaan yàlla yonent bi jotagul woon julli bu ne jiit na gaa yi julli te fekk demagul joti julli attention, il y a quelque chose qu'on veut nous dire. On veut nous faire tourner nos esprits. Alors, l'islam, nag wax dëgg yàlla l'islam jàppee ñu ay dof yàlla daf respecté Dieu respecte les hommes daf ñu jox benn matière benn faculté bi nga xam ne jox ko yéen mbindeefam yi ci faculté boobu ñu jox sax lañu ñu yeen yéen mbindeef yi ndax suñu gënee malaaka yi gën jinne yi gën mala yi gën shayatin yi gën yi ak rawxaan yi ñepp yi gën leen c'est parce que am leen lu ñu jox li xabi jox ko yeen gaay n'est-ce pas gënu leen si jikko gën leen si ay si si baax comme ñun amul am ce pas il pêche mais le péché des anges beaucoup que le péché des hommes nest pas les hommes et les djinns ñoo bokk standard de péché ndax ñoo dimension bu nous sommes sur le nasout, sur la dimension basse les anges les démons etc. beaucoup nous bokkuñu ay péché on n'a pas le même bien, même bakar. par exemple voilà, euh, boog sax exemple de la a sol gars mais comprenez que euh, moi, je jëf lenn ci fuddul place ça n'est-ce pas jëf lenn ci fuddul place n'est-ce pas un ange est créé pour servir la Hadra, pour appliquer les ordres de Dieu ndax yalla fa def tëjadi si ñom bi bi umuurihim ci ay amram manam ci ay commandement wa anwarihi, n'est-ce pas wala bok an wa ak n'est-ce pas donc ils sont nous sommes différents dans nos évolutions quelqu'un qui a été créé par exemple pour faire le mal muy un démon par exemple

te tuyaaba malaaka mooy bàkkaaram moom xaw ma ndax mais loolu dafay xaw a compliqué sincèrement je vais pas trop m'aventurer mais sachez que daal amul mbindeef bu dul bàkkaar malaaka yi dañuy am bàkkaar comme ñun nest pas waaye bokk lu ñuy dañuy bàkkaaree te bokk lu ñuy àttee suñu ay bàkkaar donc euh, pour revenir à ce qu'on disait kon tous les prophètes étaient là di xaar yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ba mu ñëwee juróom-ñaari sàppe yu njëkk yi ñett jiitu rusul yi mooy les rasoul Madame, ce sont les ce sont les les messagers n'est-ce pas yeneen quatre si topp ay anbiya n'est-ce pas mais ni c'est des humains humains la nit yi yonent des prophètes euh, humains ñoo taxaw di xaar n'est-ce pas euh, ci ginnaaw juroom ñaar sàppe les inspirés ci nit ñi tamit ñu ngi woon ci ginnaaw parce que les inspirés les prophètes et les messagers ñetti ordres yu différents la ci biir benn même hadra n'est-ce pas ñii la yàlla tànn pour ñu doxal message am et prophète quelqu'un bi dañ ko nandal la science de l'heure jox ko xam-xami jamono ba pare euh, ba pare yónni ko ba pare yónni ko n'est-ce pas yónni ko pour mu pour mu pour mu laay biir moo xam nañ ko yónni pour mu wax gars wala pour mu jàppale kenn ki jaaroon na fa ba pour mu ñëw dafa ñëw wala mu ñëw simplement nekk en aide par rapport à un grand prophète un message bi nga xam mu ngi si jamono boobu ça c'est un prophète le message nag par contre ki nga xam ne rasul la il est différent du prophète moom c'est un c'est un législateur moom il abroge dafa ñëw di dindi dara di addi lu bees n'est-ce pas donc le le rasul bokkul ak le nabi rasul moo ko gën a fort moo gën a fort grade c'est comme ñu bëgg teqali ci biir wilaya ñu bëgg teqali le le xutbu ak le abdal ñoom ñaar duñu benn ki nga xam ne xutbu la ak ki nga xam ne abdal la ñoom ñaar duñu benn waaw xutbu c'est un pôle le pôle dafa am beneen dimension mu nekk ci biir Muhammad yi abdal nekk foofu n'est-ce pas donc juróom-ñaar yi nekk nañ ci ginnaawam ak rang inspiré yi les inspirés yoo xam ne moo ko yóbbu fukk y avait yeneen yeneen rang euh, y avait cinq rangs de d'inspiré euh, moo ko yóbbu muy trois quatre cinq muy douze lignes n'est-ce pas douze lignes jàppale bu baax a baax loolu lii dafa am solo trop trop trop donc lii ñoo taxaw ci ginnaaw yonent bi jiite leen te fekk julli wàccagul muy bu mu paree julleeg ñoom mu engagé foofu nag la première partie bi ñuy wax al isra fa la jeexee n'est-ce pas deuxième partie bi lu ñuy wax al mi'raj muy yéeg muy yéeg yonent bi saa saf nag yéeg ànd ak jibril ak euh, appareil am bi wala bokk véhicule am bi wala bokk euh, matériel am boobu nga xam ne amul lu ko gën a gaaw muy buraaq yonent bi war ko wala bokk jëfandikoo ko pour dem asamaan amul lu ko gën a gaaw waaw ba mu egsee premier asamaan asamaan nag quand je parle asamaan entendons-nous bien man waxu scientifique yu réer yi waxuma lool de a estratosfera, troposfera, mesosfera, ionosfera, ozonosfera, aí, li é ai, né? li c'est samana, li c'est pas le ciel. Li c'est juste une partie du firmament, ñu o le firmament, mais egg eggul ci asaman de. Asaman gën a é loolu. N'est-ce pas? Donc euh, ba ñuy é egg premier asaman fekk nañ fa Adama alayhi salam dafa mooy chef de ce ciel. mooy mooy kilifawu asamaan boobu asamaan boobu muy premier asamaan euh, mu ngi tudd Raqiya n'est-ce pas Raqiya mooy turam mooy le le nom du premier ciel mais léegi laa la question mooy pourquoi mu jiite les prophètes ci Jérusalem di yéeg yor waruwaay bi xam ne dara gënu ko gaaw si jamono ba pare demaat ci asamaan dafa fekk prophètes yi benn par benn y a problème foofu. pourquoi mu jiite prophètes yi julli te fekk julli sax joxaguñ ko moom ndax ni ñuy jullee yàlla mosu ko jox benn xeet avant ñun mosu ko jox benn xeet avant ñun loolu nag julli tas nañ ko ci juróom-ñaari martaba naa si ñëw léegi incha allah n'est-ce pas donc am na solo ba mu demee première asamaan aadama mooy chef du ciel waaye du aadama kese moo nekk si première asamaan ndax asamaan bu nekk am na ay yonent yu fa nekk am na un messager am na un messager obligatoirement am na des prophètes am na des inspirés am na des saints qui étaient là-bas on n'a pas parlé des wàllu waye wàllu yalla yi sax ñu ngi woon ci asamaan yi indi muy rañaan góor yàlla yu kawé yi xamé jot nañ seen bop ñoom xam nañ fa la ñu nekkoon jamono muy rañaan il le sauf donc bu ñu nekk di wax si rañaan bi naan wu est-ce bi nag wow sëñ bi moo kéemtaane rek sëñ bi du problème kéemtaane loolu mën nga ko am yow c'est que loolu lay bëgg wax chaque fois dama né tasawuf ñëwul pour di créer ñuy émerger yow ci benn nit c'est pas ça son rôle son rôle c'est de c'est de booster de te déverrouiller de te débloquer de te donner l'ouverture nga mën a egg au si ñu wax les high level egg ci niveau yu gën a kawe islam loolu mooy mission islam ñëwul pour tënk doomu aadama yi pour def leen ay genre exécutant robot non Dieu a ah, assez de robot ange ay robot lañu duñu lekk duñu nelaw duñu sëy duñu duñu dee voilà ils exécutent sans arrêt et Dieu n'a pas eu besoin de ces robots là ce pas donc ndax am na leen lu mu soxla woon li mu soxla woon nag ñun doomu aadama yi ñun ñoo koy doxal muy xam-xam ci moom ñi koy xam n'est-ce pas ndax dawaa iru euh, euh, malaaka yi bokkut ak daayira doomu aadama yi malaayka yi seen dawaa ir wax dëgg yàlla ci leneen lay dox comme nu jinnee tamit doxee ci leneen nit yi dox ci leneen seyaat yi dox ci leneen mel ni y a des problèmes de réseau euh, su ma juumul problème de réseau voilà wala nekk de su heure bi les saboteurs ñu ngi ñu ngi nelaw euh, n'est-ce pas c'est bon muy ñëwaat naa ñëwaat na wala pas encore je pense que nous na de C'est bon. Wow, ok. Donc, au premier ciel, l'Intu salam mu ko kon Adam alayhi salaam Asaman bu njëkk mu ngi tudd Raqiya n'est-ce pas Bon, mu bon, ñëwee ko xool. waaw waaw mais affaire bon, moom ngi saboté de mu ngi saboté hein? macha allah. voilà li li mel ligne bi la de su ma juumul c'est la ligne ah que du ma déconnecté euh, lancé waat euh, live bi je ne pas ndax loolu du.